Wally assuré def show bu mag incha allah fii nii ci kawlax nangaan ci stade Lamine Gueye incha allah rabin tout le monde est convié à cet événement ñëpp teew ñu def show bu amul fenn show boo xam ne kenn du ko fàtteeti ci deuxième édition bi nga xam ne Leila Events organisé na ko fii nii le lendemain de la Tabaski vous voyez bien il y a une forte organisation déjà tout est en place lépp tegu na yëpp lépp yànj na des lu dul gars yi ñëw invité yi ñëw ñëpp ñëw euh, incha allah rabin euh, Wally Ballago def le grand show incha allah un show à ne pas oublier aujourd'hui ce euh, lendemain de la Tabaski incha allah rabin Wally Ballago Seck assuré un show inédit un show inoubliable encore dans l'histoire de la musique sénégalaise à Kaolack mbokk yi ngeen ko gisandoo voici la table en fait euh, des invités fii nii ngeen di gis nii mooy euh, VIP yi table yi nga xam ne daanaka on voi bien la décoration ñoo ngi koy waaj def euh, vous voyez bien que y a une forte mobilisation des jeunes de Leila Events ñoo ngi def décoration bu mucc ayib ñoo ngi préparer le grand jour si vous voyez bien organisation bi mu ngi jëm kanam. voilà grand ça va naka mu. yeneen ci organisation daanaka lan moo ci des. ah daanaka ay finition yi rek. bëreetul de ah. waaw bëreetul waa li ñëw assuré de show bu mag. waaw gis nga. ah table yi ndax yëpp occupé nañ ko gars yëpp fees na dell. ah je pense. ah kon baax ah. kon organisation bi nan ngeen koy préparé ak euh, événement bi ngeen xam ne def ngeen ko premier édition ñëpp xam nañ ça a été une réussite totale deuxième bi nangeen ngeen koy waajalee en terme de mobilisation accueil ak lépp loo xam ne ci organisation bi. lépp li nga xamante ne si nii disposition yi jëloon ci première édition bi ba ñu am réussite totale yëpp. jëlaat nañ lu ko raw. Ah. ci côté sécurité assuré nañ leen sécurité ah. parce que daaw moom li ma fi gis ay GMA kay ay. waaw yëpp lu ko raw ñëwaat ren dinañ ku ñëw di nga baal ci jàmm. ah di nga noos ci jàmm di nga dund. xam nga ah. xam ne indil nañ leen loo xamante ne si Kaolack ku xool lii nii xam ne lii du ay caaxaan. waaw c'est vrai defuñu ko ngir bëgg xaalis dañ koo def ngir. bëgg suñu dëkk. muy Saalum dëgg la ah, parce que ku xool la ñu am waaw Saalum ah, la ñu am. waaw ku nogay doomu Saalum la. doomu Saalum tey jël na li gën a baax. indil ko Saalum. waaw ah, ku xool lii xam ne dooy caaxaan. saa félicité. waaye tamit ñu ngi waajal waa Saalum loo xam ne bu soobee yàlla ñu ngi leen di. incha ñu teel a ñëw jënd seen ticket yi a dugg. ci jàmm incha allah rabi. ah doy na waar loolu yéeme waaw mais mon frère bilan bi de nu mu noonu. ah <laughs> soxna madame def madame